Les avocats de monsieur le ministre Mambay Niang ont plaidé et gagné sur toute la ligne. Un seul point, un seul a été retiré de la décision des juges d'appel. C'est quoi? C'est la contrainte par corps. C'est-à-dire que on ne pourra pas envoyer en prison Ousmane Sonko s'il ne paye pas les 200 millions. Mais on pourra saisir ses comptes, on pourra saisir ses maisons, saisir ces véhicules et tous ces biens. La seule différence ici, c'est qu'on ne pourra plus, s'il ne paye pas, l'envoyer en prison. Mais à ça, les six mois de prison avec sursis sont maintenus, ce qui va l'empêcher, comme l'a dit son avocat, de participer à des élections. Ensuite, les 200 millions à payer à Mambéignan ont été maintenus. Ont été maintenus. Donc, notre client. Notre client, le sieur Mambéignan, doit recevoir de Ousmane Sonko la somme de 200 millions. Cela a été confirmé. on a rejeté l'exception d'inconstitutionnalité qui consistait à demander à la Cour suprême de sursoir à statuer en demandant au Conseil constitutionnel de se prononcer. La Cour a rejeté ce moyen et cette requête nouvelle hein, qui consistait à vouloir obtenir le sursis en tant que dilatoire pour empêcher le verdict qui est tombé aujourd'hui. Par conséquent, nous fêtons notre victoire, une très grande victoire sur quelqu'un qui a pris 1820 Des Comores, d'Espagne, de France, de Sénégal, pensant pouvoir gagner avec le nombre. Nous, nous avons la qualité. Face à la quantité, la qualité a triomphé. Les cinq avocats de Mambeignan ont écrasé la trentaine d'avocats d'Ousmane Sonko. Maintenant, maintenant, les gens peuvent raconter n'importe quoi en disant Oui, c'est le peuple. Moi, j'ai vu mon, le discours de mon ami là. C'est le, discours de résignation. C'est mon ami, c'est Mais quand, quand vous le voyez <laughs> parler aujourd'hui, mais c'est pathétique. C'est pathétique. On s'en remet à Le peuple va réagit peut-être. Mais le droit qui est avec nous. Mais nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. C'est la règle nemo auditur à la fac de droit. Mais quand quelqu'un refuse de devant dame justice, devant le tribunal, il est sanctionné. On l'appelle encore devant la cour d'appel, il dit Douma Wouji, justice Macky Sall. Je ne répondrai pas au juge de Macky Sall. Donc aujourd'hui, il peut pas se prévaloir de sa propre turpitude. Mais pourquoi il n'a pas répondu aux différentes convocations des juges Moi, je comprends. Parce qu'il n'avait pas le rapport qui incrimine, selon lui, Mambéignan. Mambéignan, il est père, il est mari, époux donc, il est fils, il est, il est responsable politique. Des gens comptent sur lui, on le considère comme un voleur. Quelqu'un qui aurait volé 29 milliards, alors qu'il n'a volé aucun sou lui qui e accusé est incapable de donner des preuves. Qu'est-ce qu'il dit J'ai vu ça sur Internet. Ça, c'est le manque de rigueur de la part d'un homme politique qui a des ambitions dans son pays. li ma leen mën a wax tey de am nañ nam lu rëy rëy rëy képp kuy avocat Mame Mbaye Niang tey am nga mbégte ndax xeex bi ñu xeex liggéey bi ñu liggéey dafa rafet pourtant junniy avocat la jàllaloon wala téeméer junniy million avocat ndax jëlee nañu ay Comores ak France ak ku ma xamul ku ne Espagne ak jël Sénégal jëlee fi wat fanweeri ñun nag dañu xam ne qualité moo mën quantité juróomi avocat janloog ñoom wax dëgg ndax dëgg mooy mujj wan leen kii nga sosal muy baay di ndey di di baay di jëkkër am ndey am baay am ay mbok am ay militant nga ne ko da ngaa sàcc lu fukki milliards ak juróom-ñeent mu ne ah sama der rek dama ko raxas ñëwal fi yoon nekkee fi Maxra nekkee benn ñëwal ci yoon wane nag fu ma jëlee ñaar fukki milliards ak juróom-ñeent sax parce que bu ma raxasul sama der mun yóbbul ci yoon man man dee naa fu ma ñu ne sàcc bi sàcc bi sàcc nga ñëwoo la ci yoon pour nga leeral loolu nga ne wujjoo ñëwoo la nga ne doo wujji justice Macky Sall parce que gëmuloo justice a ah, ñuy wax nga ne man ci internet laa ko gis bu jógee fa nga laa ko internet laa ko gis kilifa day wax lu xam. waaye internet xale yi dañ ci dugg di saaga ka fenn kàcc rek bu dee loolu boo ko déggee ba nga ci yàq deru borom jabar kilifa ministre nga bëgg ko yàq yéexeet te amu ci benn preuve yoon rëq sa ndigg tey dañoo rëq ndigg Ousmane Sonko dañ ko dumawaat ndax yaakaaroon na ni soit dañuy yóbbu affaire bi conseil ne ko déedéet yow jàngaloo di yoon mayu la lool di sa waay da ngaa daanu di nag bu ñëw cour suprême soo fee génn élément boobu muy bu bees tàq moyen nouveau boobu mu jàll ñu ko jógeel mu ne léegi bëggatul atte bi ñu ñu dawal ko atte bi dañ ko war a casser ñu ne ko atte bi jaar na yoon six mois yi jaar na yoon deux cent millions yi jaar na yoon lépp euh, témoins yi on entendrul jaar na yoon juge bi booy décider yow euh, situation bi jaar na yoon yow kay yaa lànk bañu doo wujji di di di daw di di dëbboon teg huissier yeeg ku la ngay làq fu ne ndax ragal ndax xam nga boo demee sa gàccee la ndax la nga waxoon du dëgg te mënoo koo firnde ñu di ko nekk di ko firnde ko rek olof Njaay mu ne ku mos jàkkaarloo xam ne jëw a neex olof Njaay mu ne ku mos jàkkaarloo xam ne jëw wa neex nangul jàkkaarloo Mame Mbaye Niang xam ngeen ne Mame Mbaye Niang mosul tardé audience première instance ak appel yëpp waaye kan moo daw ku jël avance ba pare daw Sonko la bi loolu amee yoon ko da ngaa daw yow amoo looy wax di yow yaa yaa yàq deru nit ba pare ñu la kaay kaay sala sama der kaay mu leer nga daw yaa yàq suma der ne damaa sàcc vingt neuf milliards ma yóbbu ci yoon ñi ma woo ñëw ndax yore woo dara lu mun a file say wax. ci wàllu contrainte par léegi nag fen rek la gagné ay avocat booy contrainte par corps mooy bu fayul ñu ko prison juge bi nee na ci boo fayul du la prison mais mën nañ saisir sa kër sa oto say compte bancaire loolu am ñu nangu ko. prison daal xam nga boo boo demee loxo jàmbur ñu condamné la ak compte par corps boo fay day yóbbu prison boo yu noonu boo sàccee yooyu yëpp dañuy am compte par corps mais diffamation amul compte par corps ki le juge bi wax kon may nañ ko ni moom buñ ko bu fayul it kenn du ko tëj kaso waaye lu mu am comme l'avait dit Mambay dañ jël jël fourchette jël jël kawas yi jël ay daalam nangu ko kon duñ dara kon nit ki buy wax